loolu moom dafay loo xam ne loo ko camoufler camoufler camoufler dafay feeñ ndax lii feeñ mooy dafa song loo xam ne moom moo ko daan prôné ne séparation des pouvoirs mm-hmm. moo daan wax ne assemblée nationale na doxal doxalam exécutif doxal doxalam tey jii mu def loo xam ne ku ko ci dégg da nga koy gën a xeeb et je vraiment li nga xam ne moom la wax mooy ne du defee DPG ci assemblée nationale li feeg dindiwuñu réglement ñu intérieur mais loolu xanaa tey la règlement intérieur boobu ñuy ñuy coow ni di ci di ci indi ay problème mais règlement intérieur boobu moom la Amadou Ba joué moom ci la defee woon déclaration politique générale ak itam ñi ko jiitu woon mhm. ndax bu sa moroom yëpp dee bëy boo dul bëyit njëgu bëy nga ñi fi jaaroon ay ay premier ministre lañ kenn ku ci nekk da nga dem assemblée nationale taxaw fa ndaw pencum ndaw réew mi wax ak ñoom li nga xam ne moom nga war a wax mhm. et c'est dommage pour lui moom su génnee defe ko feneen seeti ay universitaire bu mu ko tuddee ti déclaration politique générale ah. na ko tuddee conférence de presse wala na ko tuddee waree ba nu mu ko tuddee mhm. mais am na loo xam ne ñun député yi rek la ko mën a wan ñu posé ko ci ay question laaj ko ci mu wax ñu ko mhm. et nag man li ma koy dana gën a dalal nous sommes une une opposition républicaine mhm. boo xam ne ñun duñu ñoom ndax li tax duñu ñoom suñu doon ñoom bërki démb bi ministre de finance di ñëw kon nga dégg ñu ne Sénégal assemblée li mu def ndax mënoon nañoo dajaloo ba ci biir assemblée bi ñëw di yuuxoo wala di ko saboote wala di def ay mais defuñu loolu. Mhm. parce que ñun xam nañu luy état. Mhm. xam nañu. seen diggante ministre bi dinañ ci ñëw ci kanam tuuti parce que aussi euh, lu important la mais ñu taxaw ba tey ci euh, wàllum DPG bi ak li mu sàkku ci yéen mooy que ne ñu revoir euh, li nga xam ne mooy ko ci règlement boobee d'accord na ak yow mais aussi il n'est jamais trop tard li mu li mu revendiquer aussi est-ce que du loo xam ne lu légitime la loo xam ne war ngeen ci taxaw pour rek sénégalais yi xam ne yéen kat vous n'avez plus rien à vous reprocher. non mais loolu loolu loo ne woon bu ma doon buur def ko mi ngi ci xelu buur actuellement bi mu ko waxee. Mhm. pour ñun ñu bañ ko wutal benn bi mhm. ragal naa ni président assemblée nationale mi ngi ñuy dégg ragal naa ni euh, membre du bureau assemblée nationale ak euh, les le la conférence des présidents daje dinañu daje ci ci li ma xalaat. mooy nii duñ ko may benn port boo xam ne mm-hmm. dina ni fii du fi jaar porox ndoll bu mu tëgg rek dinañ ko fatt mm-hmm. bu dee loolu rek vous êtes prêts mais tey rek yaa ngi dégg le président Abdou Mbow naan la bu question de une semaine la quatre jours la ak nangam nangam donc am na ci loo xam ne moom bu fekkee ne pare na pare na laa wax mm-hmm. et c'est boo xam ne booy boo ngeen bàyyi ko xel est que pare na est la déclaration politique générale est mais ils ont ils ont un projet vendu aux Sénégalais xam nañ ñu jëm nee na ñoom dañuy falu rek doxal loolu ñu jaayoon aussi ah, a déjà def nañ 90 jours dañuy falu moo fi am actuellement ay ay xuloo moo mel ni nga dañu nekk par dañu nekk ci moment boo xam ne moo opposition c'est la première fois depuis le Sénégal et Sénégal mmh. un régime changé président de la bu bees gouvernement bu bees ñëw mel ni dañu nekk ci ci ci temps politique